S'il fait ça, nous, on appelle tout le monde à aller là-bas. nga xam ne ñoom la constitution ak loi électorale jox sañ-sañ pour ñu organiser élection xam nañ ni lii yoon dañ jël seen matuwaay bu arrêter ko muy CNRA muy commission nationale de recensement muy Sénat muy keneen ak keneen ba ci conseil constitutionnel nañu arrêté dérive yi nga xam ne gis nañ ko balaa muy balaa muy ëpp loxo